nuyu waaw fay naa leen gannaaw bu ñu sante yàlla julli si Mariam bu sell bi di ne alléluia alléluia di sant sama yaay bu baax di ñaanal sama papa fu mu tëddee yàlla na suuf oyof si kawam xam nga di ne Mama Lamine daal fi moral laa ñu ñoo koy dalal le six buñ buñ ñëwee xam mu dalal ñu duma ko daan ko wóor na yàlla. Mama Lamine bëgg nañ ginnaaw bi sant yàlla julli ci rent bi di sant suñu ñaari waajur di sant staff bi àndal lépp di bëgg sama gaay ma comme fi dëkkam la di ko wax mu dalal ma su ma ñëwee fee ma dalal ko duma ko daan ko le 6 le 6 incha allah ah. loolu ko ñëwal ma duma la daan la du yow ma xam naa ajo ñu bàyyi nga woote waale kon ñu lay waaw di sant yàlla julli jërënt bi sant sama ñaari waajur di bëgge sama gaay yëpp di bëgge waa écrit lan jàmm gépp waaw su ma limee xaali daanaka lim naa ñëpp su ma limee la drago daanaka lim naa mbëri fa ne yëpp di bëgg waat sama mafia bi mafia Maama Lamine fan si club Maama Lamine bi waa gàdd ci kanam waa Touba Toul monsieur le maire Ahmed Dieye moom jàpp na si béy bu baax dé moom suñu xel dal na allah Mama Sall Bab Mbeng sama mafia bi Pate Sita alliance Cheikh Góoroon Laasin Lassander di bëggee sama gaay ñoom xaali ñoom Lassan ñoom fils de Landing di bëggee ñëpp di leen ziar di ko nuyu moom. aja ñu bàyyi nga woote. ne ko mu gërëm. woote bu wootee gërëm. jour keroog le 6 maay toog si plateau bi wax maay diriger. wooteel làmbaje maay xale. maa munta maa ëpp doole nag. billaay walaay maay xale maay diriger. xoolal may dirige may daan ma barke yàlla. wooteel. waaw yàlla na ko yàlla may ndam. wooteel. maa woo sama mbokk yëpp sama booy yëpp moom mi ndaw yi nekk li may gën a ñaax gars yi tamit moom mi ni ndaw yi dañoo sonn si man booy amuñu nekk dañuy dajale seen i fukki dërëm seen i cent franc ñëw andil ma xam nga man a ma fooy booy yi leen di ñaanal bu baax di ñaan gars yi di ñaaxaat gars yi tamit ñu gën a caab si combat bi nii xam nga combat bi dafa nekk combat boo xam ne daf ñoo ñor trop. billaay walaay xam nga mais kii comédien a bu ko neexee gars dëkk micro mu wax lool dawul suñu yaram mais jour keroog bu bu arbitre sifflé xam naa ne moom day taxaw bu taxawee dama koy dama koy làbbali billaay walaay xale laa rek lamb duma ci arrêt dama lay duma dama lay daan bari aca jërë mbokk yi ñuy siifur ñu leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax comme niñ ko waxee rek quatrième édition drapeau ki nga xam ne mooy monsieur Yves Lamine Ciss maire de Morolan muy maire boo xam ne yaakaar naa comme ni ko mbër yi di waxee liñ naan genn golo gàtt na waaye loo ci laal borom yëg ko parce que tamit maire la boo xam ne yaakaar naa nee na kenn ku ne boo boo sañoon am ko ci sa gox parce que maire la boo xam ne day jàppale li nga xam ne mooy goxam parce que bari na mbër yoo xam ne chaque jour ñu taxaw ni if la mi sif li ma jàppale sama combat bii nii sama meeru dëkk sax jàppale wuñ ko moom itam ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mais muy quatrième édition bi war a am fële ca hippodrome Ndiaw ma grand combat bi war a wax ci diggante caatu limousine mi bu baax war a daje ki nga xam mooy building muy combat bu am solo parce que ñaari champion lañ yoo xam ne yaakaar naa kenn ku ne dootu leen kenn du leen présenté fi nga xam ne mooy région de Thiès mais beneen combat taxaw ci muy diggante caatu xaydaaga di ndaanaan di bërekat ñu yàgg koo gis muy ñëw Thiès di fa bëri si ak fi nga xam ne mooy Dakar mais kan lay dajel Modou Anta numéro 2 di ndaanaan di champion kenn ku ne gis ko li mu def ci drapeau Sélta mais bala ñoo sori rek dañuy bàyyi ki xam ne mooy caat mu dalal ko comme que tey yow la fekk si caat nuyu nañ la. di nuyu waa salle bi maa ngi ñu fi yëpp nuyu waa assistance bi ah waaw. bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp daal. Mhm. waaw di dalal saa waay nag. Mhm. te yaa ko dalal sa dëkk de. te maa ko dalal sama dëkk maa koy dalal. Ah. waaw. Anta 2 nuyu naa la. waaw fay na la Modou Kara. Mhm. ginnaaw ban sante yàlla julli si yonent bi dañuy sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh mu sëñ Fallou Ndiaye Daabaay yi di sant Thiès gépp di nuyu sama ménagère di nuyu suñu entreneur di nuyu sama turandoo Modou Anta mhm. di nuyu Père di Diakhaté ak monsieur Yves Lamine Ciss mhm. di leen ñaanal jàmm di ñaanal saal bépp jàmm di ñaanal sama adversaire jàmm mhm. ba bis ba yàlla may man ndam ci kawam ci barke xam ne saa mel ni fi nga ñëw miin nga ko de ndax bëri nga fi ay tournoi fii bëri naa fi ay tournoi fii nan sàccee woon sama jakarta ba fii xam nga bëri naa fi ba final tournoi di xool jakarta ba gisatuma ko kon fii moom sama dëkk la daaw rek ñëw naa fi. Mhm. bëri bi tamit mooy loolu. sa diggante caatu xaydaa ga lan lañ ci mën a xaar la siis. waa xam nga tey moom gaañen tey moom daanaka li ñu doon wax wax nañ ko ba pare xanaa dañ koy ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp di jàmm. Mhm. di woo suñu papa Yves Lamine rek. Mhm. su ko defee mu mën ñoo jàppale ci béy kii ndax moom tamit xam nga. nit ku baax la ñu ngi dégg loolu ci moom. ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu si combat ak waa Thiès gépp di woo sama ku mel ni suñu monsieur le maire Birame lay Diop. di woo ma lay Diop di woo Masamba Diop di woo Badara Père Babacar Père Ñambe Dioum sama waa koñ maa ngi leen di woo di woo waa kër maam moo Alaaji Moodu ni waa Daaba yi maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat di woo waa kaw Sara Fall waa Medina Fall waa taaxi kaw gama a dëkk bàyyiwuma kenn daal di woo Thiès gépp ñu ñëw jàppale ma sama tayba tayba yi ñoom Ousseynou Assane Grand Moussa Djili ak waa marché central Maket Maan yi maa ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci waa marché Jën ñëpp daal di woo waa mbaar ma xam nga. Mhm. di kontaan trop nag waaye ci bisu tey bii daal waaw. caat le 6 lan lañ mën a xaar drapeau Iflami 6. waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonante bi sant sama ñaari waajur sant sama gaay ah ñi may àndal ah sant sama grand bi Saala ah, di ñi fi teew yëpp waa stade bi ah bàyyi ma kenn. le 6 lan lañ mën a xaar ci côté mobilisation ci côté bëre. non le 6 kii kii maa ko ëpp mbooloo. kii maa ko ëpp mbooloo fuuf. ante 2000. maa mbooloo fuuf. ba ah? Serigne Baba te le 6 nga ko narawoon wala talaay. sa mbooloo le 6 nga ko narawoon. le yi dinañ gis loo xam ne mënuñu ko gis asat bu soobee yàlla man dinaa mobiliser wu ñëw. ñoo xam ne beneen caat moo ñëw tegaat tàngam si biir kees man dama nekkoon sama rokul di liggéey du kii moo may téye kii mënu ma téye su ma duggaatee si biir kees daa am lu tax. waaw hmm. nii. xoolal ni ma tool xale bu ndaw. sa adversaire kay bu ndaw dama liggéey. parce que Serigne Babacar dama liggéey dama am doole. billaay walaay sama doole bi dama ko wóolu trop. te nga ko bëgg woon kii nii. dama ko wóolu trop. gi déggoo maintenant kii mënu ma téye kii soxla ma ko déggoo maintenant patron laa soxla. mu ànd wala ñoom am am kii amul laas kees ñoom laa ko doon ñoom ma tax a yëg di wane du kii. kii mënu ma nga woote la si. man dinaa ko jox cër. yaa ngi wooteel ba ki bu muy bë bu muy bëre bu muy bëre juróogu ma. kii nii seen naam bu muy bëre juróogu ma la de. keroog dafa waat. ma ne naanaanu bëre kat man du waat ti waat loo xamante ne. xam kii bu muy bëre bëriwu ma. dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. nan la bàyyi nga woote ba le 6. waaw nga woo jàppale ci bis bi. waaw le 6 maa ngi woo maa ngi woo if kii kii laa njëkk woo ndax kii kii day dama may jàppale guddeeg bëccëg bat Serigne Ahmed billaa wala maa ngay woo si combat parce que bee jeex na comme ni ma la ko waxee keroog bee jeex na yaa ngi dégg di woo monsieur le maire Maguette Mbaye xam nga di woo waa Diamaguène Diamaguène Sicap Mbao di woo Jembare ah woo waa Ginaaw Raay yaa ngi dégg waa Morla yëpp di woo man doomu Mandé Mandé laa man séeréer laa ma koy séeréer Morla laa ooy gëpp lan xabaaso mooy Morla tout mais xale kenn waaw di ñaanal nag sama doom day yàlla may ko ndam bu sedd guy si kaw building ñun ay séeréer la ñun ragaluñ fu ñuy féete xoolal ragal féete day xañ a wërsëg te si kattanu yàlla ñu ñooy bëre ñu ñooy xeex ñu ñooy daan jaajëf ñooy duy stade ba mu fees ñu bàyyi ngeen jël waaw di ñaanal kii nag Yves Lamine Ciss di ko ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan lépp lu mën ren déwén yàlla mu mën lu ko raw ndax kii jàmbaar la ku jërë jàppale moo nekk nii bilaay walaay tallaahi waaw ayca mbokk yi ba léegi rek drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan bii di quatrième édition bi mais ñi taxawoon ñooy athlète euh, ñi xam ne ñoom ñooy jiite jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam ne mooy commune de Morolan ñu bàyyi mu sànni ay kàddu ci seen tur nuyu nañ la athlète. Euh, maa ngi leen di fay di nuyu ñëpp ñi fi teew di nuyu suñu honorable maire Yves Lamine Ciss di nuyu aussi monsieur di Diakhaté Euh, di ko remercier ci sargal bi ñu sargal nii ak drapeau bu mu tuddee suñu maire muy quatrième édition ñu koy fekkee di ko remercier ci loolu di woo waa Morolan ndax bés ba ñoom ñëpp ñu ñëw teewe bés bi ñëw accompagner suñu honorable maire Yves Lamine Ciss waaw bàyyiwuñu kenn ak ku mu mënti doon muy jeune socialiste ak euh, sympathisant yëpp ñu ngi leen di woo ci bés ba muy le 6 bi ñu jëm nii le 6 euh, mais ñuy woo ñëpp daal ak jeunesse bi di woo sama association 100 pour cent Morolan muy mbër yëpp di leen woo ñuy ñëw ñu accompagner monsieur le maire accompagner waale aussi suñu lutteur muy caatu euh, limousine ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ ci dañ ciy bëre aussi muy Bab Gaynde ak euh, Fadam ñu ko naan caatu xay waaw may jaajëfal ñëpp di woote bés ba nañu tase fii ci buntu mairie bi bu kenn manqué. di mhm. leen jërëjëf. aca ñu bàyyi la nga wax ci séeréer. yeerni mana woɗoh ɓoyeɓe mana woɗoh monsieur le maire mana woɗoh moussa yasine mana woɗoh sidi diahate mana woɗoh koyke morlan ɓe le 6 mai yenda lahu lamba yen ɗagun koyke morlan ɓe victoire a yiminti hen ɓoy bori rek ɗambi victoire afli morlan yen sigil morolan ah, yen saya a jamma yen woksu a jamma manci lah viola manci lah dara manan ɗagit ko yaaso bab gaynde to laɗa tutugi yenga bidiri ko yaye puno boko yaya bappa sa lahayri ma ɗanka bidi bab gayne ma ɗagi ɗo yena ɗag mi adnoru ɗampi ɓiri yaw sun te ɓoyi ɗon ɗon laha joom ɗon ñetal caatu limousine da laha drapeau ganda fadam ɗon turon ɓiri yeeron sun ɗon siggil morlan ɗon siggil monsieur le maire ma ɗang ɗon bahalo mai victoire hen victoire ɓoye morlan tidee ba ku nekk miis mi yaa ne na on baal sa àkk jërë jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax ba léegi rek ñu ngi fii nga xam ne mooy Morolan taxaw ak ki nga xam ne mooy monsieur Yves Lamine di maire boo xam ne comme ni ñu koy waxee rek nekk na maire boo xam ne yaakaar naa mbëri làmb yëpp am kontaan ci moom parce que ñu ñu bokkul sax ci nga xam ne mooy euh, commune Morolan dañu gis ni mu leen di jàppalee ci seen i journée di jàppalee bu baax a baax tey mu bii bi drapeau Yves Lamine Ciss grand combat bi war a dox ci diggante ki nga xam ne mooy building bu mu sante ak ki nga xam ni mooy euh, caatu limousine bu kaay baax dëkk fi nga xam ne mooy Morolan mais dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Yves rek mu wootee bis euh, le 6 nan lañ koy waajale nan ngeen koy waajale oɗo koye gintuɗo ɓe mana wonno biti bise ɓe na suuyen beera wal ponudi ciin fii mais manam gawe ke wugis ɗo yen suuɗefre sidi jahate thies sidi da tip lamba Thiès yeɗɗo so drapeau way drapeau ɓoneri bereere e koyki ndut caatu limousine daayri bere koyki ndut mbeur ana ñewta sun fi aussi wonde ay bok bere min ɗanke koyki ndut ɓeep eyen ɓen mberri yen yen sey ana a jamma yen wogis a jamma mais won chef de village sara manam yi koyi ginna oyi ndax lamba ɗo yin coosaan laamade yin kukoyne wa yin ɓaha bokna ɓe leɓɓa tamit président groupement ya mairon dokre mais dok aussi conseillère a mais dok aussi président ascr a ɓeɓen a ɓoy zone mais dok aussi moduɗo modu zone manam ɓoyguida kuɗ sport aɗa mana wonde mbiti modu mobilise i ma awa ɓoy asc morlan 100 pour cent morlan ɗahat yakar mbi yen wonde kon pour mbiɗi ɓoy 100 pour cent morlan bisa bison kon góorgóorlu yi bee yen ɓen mbori yen yen participer yen ɓatte haɓre a siidi jahate nda siidi ye pagueɗe sotoɓeero de mairie gueɗem ɗo ɗe min ne ko onni sosfan ko laf ko onni sosfan ni yena pangɗi ɓeera sañ fii mais surtout mana doog saafeera bajanni so mayona mile daha amɗane ɗon mbato ne mbawi doog saafeere ɓeet mobilise bajanna mais ron wonda oyi tan soo comme ça vraiment bisa hen bisi yengi biti ndaxte maanaam trop Sidy Diakhaté daari be en tout cas mën a gërëm di bu baax a baax de min ko ondo sospaan Sidy de min ko lafal la cat de min ko ondo sospaan bu baax a baax kon boog mais day gërëm bu baax a baax era era era mbokk yi ñuy suivre ba léegi rek drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan bii di quatrième édition bi mu taxawal combat boo xam ni nee naa la combat bi rek doyoon na grand combat parce que yaakaar naa diggante Clédor mi nga xam ni mi ngi ci cinq combats 5 victoire di war a dajee ki nga xam ne mooy subaan di ko yaakaar naa diggante mag jël dem kenn ku ne seetaan na ko waaye digganteem ak sëll bu ndaw yaakaar naa kenn ku ne seetaan na ko Thiès di ñaari ndaanaanu bërikat nee naa la combat bi rek bu ko tëggoon Thiès bu ko tëggoon Thiès hippodrome jaw ma ko day fees dell parce que combat la boo xam ne mun naa ne amateur yi làmb yëpp dañ koy xaar muy ñaari ndaanaan mais dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Kéledor rek bàyyi ko mu nuyoo waxtaan ak adversaire am Kéledor nuyu nañu la. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonente bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu fàllu mu suñu murtala di ko ñaanal euh, yàlla bàyyi ko fi mu yàgg suñu kanam ba ci kanam a kanam a di ñaanal xalifa général di murit suñu Muntaxa yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool di nuyu waa cees yëpp di jiital ci nuyoo bi waa Cité ñax bu baax a baax a baax di nuyu ñi ma àndal nii sama gaa yi ma àndal yëpp ñoom bàmba boo limee Bamba rek da nga yóbbaale ñëpp di nuyu waa Cité ñax waa Pesival jàmm gën Sénégal ak li ko wër sax laay wax yëpp ndax foofu benn champion moo fa nekk muy Clédor doomu dëkk bi di nuyu bu baax a baax waa Touba leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Tamba di nuyu waa dakaar di nuyu waa Guinée Bissau di wax sama mbokku njaago yi bayti ña ma njaago ma duy ndi ba léegi ñaanal ndiri bu waar uh-huh. sant yàlla bu baax a baax a baax nag. Uh-huh. subaan de ko bëgg nañ la. bismillaahi mina sheytaani rajiim bu baax ñu fekk ci. biir kii bi kii macha allah di nuyu tamit évilibsi ñu ngi koy nuyu baax a baax nuyu Père Sidi Diakhaté di nuyu waa Thiès di wax sama waa koñ leen combat bi comme noonu demee woon rek moom xam naa ni xamante na ci diggante bi am na doon laalante man ak moom yow moom waaw am na doon laalante te bis bi li ma mën a wax daal mooy 2 0 3 la bu soobee yàlla ah ñu ngi woo waa Madina Fall gépp di woo waa Thiès comme ni ma koy waxee rek di woo maître mu jàpp ci combat bu baax a baax jàpp ci béy xam nga di woo waa Thiès comme ni ko daan defee rek combat taxaw na bii na jeex tàkk bu ko defee yaa ma gën a xam mooy loolu. waa ji laaj nga ko kañ la ñibbisi. non man man doomu mbër laa amul lu may laaj mbër. barke Seydina Mohamed làmb ji bu doon léegi ngemb laa indaale mi ngi nekk ci saag ba. ngemb barke Seexul Xaddim mi ngi nekk ci saag ba. yéen da ngeen a bëgg a bëri te li si. li ma la combat bi daa doon combat boo xam ne bu ma ñor sama waa ko ñu ko yaa ngi dégg di woo waa mbake Mbacké di woo sama mag yi nekk foofu yëpp di woo lamin France di ko woo ko comme na mu defoon rek na ñëw jënd bee yëpp mu jeex ngembalaa laa ne le yaa ngi dégg li ma la wax ngembalaa gi nii bu ko neexee après ñu maye ko yaa ngi waaw kay voilà kon xam nga ne ah, làmb kon xam nga ne làmb ñor na ma yëpp ñëpp ñu ñëw jënd béy béy teel a jeex ñu dem stade bu soobee yàlla man li ma leen ameel mooy abdou soufle ma jàpp kale mi daan ko jël bu rëy bu neexee yàlla di woo waare lamb faal waa jagataay ñëpp nanu préparé ndax combat bi seen combat ñoom laa ko may kele door xanaa xanaa ngemb lii moo taxoon nga dem Tamba dégg naa fan yëpp Tamba nga nekkoon waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax di woo waa daara ja nag waa daara ja wuy ma ci li ma la di woo ñi ma bokkal sëñ Fallou sëñ Mourtala yëpp waaw di woo suñu papa Mout Sall di woo suñu papa euh, di woo ñëpp daal ci combat bi. bu ngeen laale woon yéen ñaar bu ngeen laale woon. laale wuñ fenn laale maa ngi sama turandoo Kelle Dor Fall. Clédor Fall moom ndeysaan kenn la ci man maa ngi ko yow bu baax a baax a baax suñu papa Clédor ma ko waxee rek moom li ma ko daan wax na ñëw defal ñu li mu daan defal ñu defal ko lu ñu ko daan defal waa Séré ñax maa leen ko digoon maa leen koy digaat maa leen ko assuréel ne leen victoire bi incha allah samedi le 6 day ñëw ñu feete ko ni ñu ko daan feetee incha allah di woo ñëpp di di di woo di woo ñëpp sama open presse sama open presse le 6 la incha la incha di leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw dégg dégg nga li mu wax sa adversaire di nuyu suñu papa Sidi Jaxate bu baax a baax di ñaanal sama ñaanal di di ñaanal sama di ñaanal Matar Mbaye ambulance ci combat bi mu jëm yàlla may ko si ndam bu baax a baax a baax Matar Mbaye ambulance maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax. da ngaa wax sa combat bi. yéen daa mel ni kii daa mel ni Baye Matar Mbaye laalaw daa am combat dama ni sama diggante man ay yow la amul koo ci woo doo ci woo kenn ba mu fekk la ca diggéew ba man ay yow la le 6. Touba kër gi ngay féetee gëlëm gi sax maa la fa gën a miin. kër gi mi féetee gëlëm màggal. maa ko fa gën a miin. yow mi njaago yaa mën a woo sëñ Fall waxantuma laa man mi jullit laa la wax nga naan ay nii naa noppil yow bu ma tax a wax dégg nga dégg nga ma wax dégg nga ma wax. yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhal lazina amanu. fii aay indi wuñu fi bu ñu indee aay li ma wax dégg nga. jullit nga kay li nga wax daal xoraan nañ dem yaa ayyuhal lazina amanu bàyyi ma cuqi la nañ fiirante fekkente ne da ngaa ja fekkente ne jullit nga nañu fiirante ci alxuraan. wax leen ci la boo ci tegee boo ci tegee benn baat tamit relais yaa ko moom. yaa ayyuhal lazina amanu. dama ni la 2-0. boo ci tegee le 6 dama ni la 2-0 dama ni la 2-0. nga ne ko le 6 2. 2-0 instant yi da nga koo daanoon de xam na li ma ko wax baax a baax 2 0 le 6 3 0 barke Seexul Xadim. mu ni mu ni mu ni le 6. man ak man ak man ak Ousmane Mbaye Ousmane man ak yow. ku ëpp doole ci combat bi ku gën a sonn ci combat bi ku gën a ñeme ku ëpp fit yàlla na ko yàlla may ndam. da nga naan amin yàlla na ko yàlla may ndam barke Seexul Xadim ku gën a sonn. ku gën a doon bëri ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam Fallou dama ko tënir nga ne ko yoon dama ko tënir dama ne la xoolal dama ne dama ne la dama dama barki Serigne Touba maa la ëpp doole maa mën lépp maa la ko bële ci lamb ji lamb ji yow man damay ñaan yàlla tuur lamb ji nga na ñëw rek ñu bëre na ñëw sax ñii bu ñu waxee xam ne tëgguma la bët Ousmane koo daan limoon ma ñaari ñoo daan ñëpp ren mën barki Seexul Xadim maa mën maa la doole waaw kon jeex waxoon na signature bi nee du arrière ñu bàyyi ngeen woote nee du arrière ci combat bi nga ne doo arrière bu arrière nga nga ne doo arrière sa diggante ak yàlla doo arrière kon kay neex na kon combat kon du ma deux bi du ma deux bu fekkee doo arrière wooteel arrière du ma deux minutes une minute ñaari <laughs> di woo woo déggoo li ma la wax. wooteel li nga kii ndax nee la ko amul doole bokkoo. combat bi ku ci ëpp doole yàlla na la yàlla may ndab. wooteel. di woo waa Touba yëpp di woo Daara ja xam nga li ma la wax est-ce que yaa dégg di woo waa Dakar di woo bu baax a baax a baax di leen woo ci combat bi ne leen kii moom xew mu ndaw la lañ daan def jëruñu koy def parce que kon damay bañ mu jour combat mu bañ a bëri si nañ ko bàyyi mu ñëw bërësi rek man loolaay ñaan nañ ko bàyyi mu ñëw bërësi man maa ngi ñaan yàlla rek li may ñaan ci combat bi mooy arbitre soufflé sama diggante ak Ousmane Mbaye ñu gis combat bi jox ay conseil bu ñu ma waxee conseil sax du ma ko def lépp lu ñu ma wax ci combat bi ko def combat man maa ko jëlal sama bopp parce que ñëpp dañ Cees yëpp dañ maa wone ma kii waroo koo jël du yoonu làmb man leen damay wone ne li ma ko mënee li ma mën biir Cees mbappar yi ñu mujj teg biir Cees yi fi gën a diis man maa ko jël ay mbërë fi nekk fekkee amul nañ ne ma amul kii maa ko gën a compétir maa ëpp lépp barki Serigne Touba dama lay daan. barki alxuraan man maa ngi woo waa Thiès di woo sama waa koñ waa Areba di woo waa waaw ma may moo xam ne ma ko tëngi nii yow da nga jàngul ko waa booy. <laughs> bu dangay dund ah? waay gaayen kii ngay jàng ma dem toog ba ngay wax dama ne ceelu quoi jàngul kay xam nga di woo waa Madina Fall bu baax a baax waa Areba maa ngi leen di woo yaa ngi yaa ngi dégg non ñoom xam nañ ma baax entraînement laa fekk tos seen ñoom ñii tas seen équipe dama ko tas mm-hmm. ñoom ñëpp xam nañ ma xam nga di woo ñoom bàyyi pële ñëpp ñoom ñaa ñoom ñoom ñaa wooteel mais may ma woote gayen xam nga di woo ñoom ñaa xam nga di woo ñëpp di woo ki nga xam ne mooy di woo di woo gars yëpp pour ñu jàpp ci combat bi def li war a def yëpp comme ni ko daan defee rek kii moom du ma téye ndax am na fu ñu jot a jaar ci diggante bi yaa ngi dégg bu soobee yàlla yàlla dañu may ndam bu neex a suñu borom jaajëf am nañ ci yaakaar bu baax a baax di woo waaw di woo waa Thiès ñëpp nag di sama waa arrêt sama waa koñ combat seen combat def leen na nga naan def yéen waa arrêt bi waaw yéen a moom combat bi nag di woo Ba ci béy di ki nga xam ne mooy ñaa ci béy di di woo ay mëlay di woo ñëpp ay ñoom Ablaye Dieng ñëpp maa ngi leen woon jàpp ci combat bi. waaye ku xam Sidi Diakhaté xam ko digganteem ak ñi nga xam ne ñooy Madaar ñuy ay partenaire am di ko yàggalee jàppale ci bis mais dañuy bàyyi ki nga xam ne moo leen représenté rek mu sànni ay kàddu ci bis bi nuyu nañ la. sant euh, fay neen sëñ bi bon di wax alhamdulilahi rabil alamin di ñaanal Sidi yal na ko yàlla may ndam si ba bësam bi muy dëgmal di la siis di nuyu euh, l'honorable monsieur le maire di maire de Malicounda di sant bu baax di gërëm askan bi nga xamante ne ni ñoom ñoo tànnal seen bopp produit bii di euh, Madaar ndax Madaar nekk na produit leader dans le marché euh, ñu ràññee ko loolu nag ci euh, qualité ak efficacité vraiment mën nañ ne comparer mais jamais égalé donc su ko defee ñun dañuy ñaan askan bi yëpp ñu daal di mobiliser wu pour ñëw jàppale le l'homme le grand promoteur incha allah si bésam bi nga xam te moom lay mal si le 6 di leen jaajëfal bu baax a baax. nuyu lañ la. ku xam si di xam digganteem ma ki nga xam mooy Noura. di produit boo xam ne Sénégal gépp dañ koy utiliser ñoo ngi lay sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la fay yowet mm-hmm. di leen sargal seen bis bi. Mm-hmm. di ñaan yàlla jour bi ñu koy commencé tey. Mm-hmm. yàlla eggale ko ci jàmm. di ñaanal suñu promoteur Sidi Diakhaté. Sidi Diakhaté vraiment ñun ak ñoom depuis démb loon tey soog a ñëw. Madaar kenn dootu ko présenté fii Sénégal ndax kër goo dem wala mbedd mooy dem sax di fa gis lu bokk ci produit Madaar vraiment Madaar ca kaw ca kanam da ñaan yàlla bis bi ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim egg ci alhamdulilahi rabbil alamin ki ñu koy tuddee muy Yves Lamine Ciss di ñaan yàlla mu eggale ko ci jàmm le meilleur gagne jërëjëf ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ba léegi rek drapeau Yves Lamine Ciss bii di quatrième édition bi grand combat bi war a dox ci diggante building bu muusante ak caatu limousine mais combat spécial bi taxaw nii war a dox ci diggante doomu Thiès ak Ino bu campement Ngeexoo muy combat bu am solo mais bala ñoo rek dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy doomu Thiès mu nuyoo doomu Thiès nuyu nuyoo. Ah, waaw Kara ñu ngi lay fay ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi di sant sama papa bu baax di ñaanal sama yaay ko yàlla xare àjjana du nuyu suñu xalifa seen miniiru ko ñaanal mu yàgg lool te ànd ak wér du nuyu suñu père Sidi Diakha di ko Ino borom campement. gaynde nuyu naa la. dégg nañ la. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Yonent bi ñu gërëm suñuy ñaari waajur bu baax di remercier père mi soxla combat yi ba tegu ko di laa jaajëfal yow mii taxaw suñu wet dañu laaj ñuy wax nuyu sama adversaire bu baax a baax. le 6 lan lañ mën a xaar sa diggante ak doomu Thiès. combat bu neex. ah bu neex. dina am xeex. torop. dina am bëre. waaw ci bëre lay jeexee. ci bëre lay jeexee. sa adversaire nee na ci bëre lay ji. am laay xool la ma ko waxoon rek combat bi moo ma tee bëre grand combat te bii laa tàqale ko gars yi c'est spécial ndax jot na ma bëre grand combat. nee daa bëgg a tàqale ko gars yi te ci bii lay tàqale ko gars yi est loolu di ko ko may. bëgg a bëre moo tax mu jël ko moom. yéen daa mel ni yéen a bokk jàngoro. kon mën naa nekk. mais dama ni la bañee def année balance moo tax mu jël combat bii mais kii du mën ak moom ci làmb. doomu Cees waaw. làmb tëree ji nii rek ma jël ko mais du man ak moom ci làmb maanaam du adversaire de palmarès foofu laay waxee. palmarès boolewul déedéet bëree ñu boole nag. làmb boole nañu xëy na raam na kon bañ a ane balance moo leen boole yéen billaay wallaay mais maa ko mën fuuf ka ko mën sax maa ko man doomu Cees mi déggu li ma la wax. tey laa tey laa tey laay mujjee sii di Diakhaté avant grand combat tey laa koy mujjee bëreel Sidi Diakhaté mu ngi ko ma anam jóg na. tey laa koy mujjee bëril. dina ci jot kay. voilà su ma mënatu la jox grand combat dama bëri spécial. ndax dégg nga ma. dégg naa la bu baax kay. sa adversaire mooy tontu ci loolu. kii daa baax di wax rek laaj ko man kan la fi daan moom kan la fi daan. ne ko kum fi daan. ne ko kum daan. waaw mu ngi nii moom laa waxal nga laaj moom kan la fi daan mu ngi nii moom laay waxal kan la fi daan. neuf dix laa def benn defet laa am. wàccee sa loxo. dix combats laa def benn defet laa mu ngi nii taxaw. moom kay koo fi daan lay laaj. du ma ko lim. jarul lim. parce que da ngay bañ mu daw. déedéet ñooñu jàll nañ moom laay waxal ñooñu jarul ma leen dem jàll nañ moom laay waxal ñaari ko la am moom. kii daa baax de wax rek. daanu fi kenn kii daanu fi kenn. kii daanu fi kenn kii man maa ko may sens kenn xamu ko. wuyul mu kii maa ko may sens kenn xamu ko. te su jour ba dinaa ko wan. ñaata combat la am. te su dinaa ko wan. mi ngi ci six combats de. six combats waaw dix combats la am. kii laaju moo tax la ma ko waxoon rek laa koy waxaat. li nga bëreeg boo xamal man nañu koo xaar sa diggante moom. kii sa arbitre sifflé maa ko mën maa ëpp doole fu mu taxaw ma fekk ko fa. li nga bëree ñaar yar mën nañu koo xaar sa diggante doomu Thiès. su bëree daanu su xeexee daal ma duma ko. li ma def ñaari yaay lu ko laa koy def moom. la ma ko waxoon laa ko man du ma mbër mu ñuy du ma du mbër mu ñuy dox sama kaw. lu leer lu raboo lool nga sóor ko bis ba su arbitre sifflé. su taxawee dëggal boppam su arbitre sifflé. arbitre bi waaw moo dox suñu diggante arbitre bi moo dox suñu sama diggante ak moom moo ko fa bàyyi. nga ne bu arbitre rocc. arbitre bi moo ko fa bàyyi moom mu taxaw. kii daa baax di wax li muy wax ni yëpp du ko indi jour combat ba arbitre sifflé fa la lay taxawi di jaay affaire expérience ak yooyu noonu. arbitre sifflé man maay def lépp maa mën maa ëpp doole maay xale. dama fi daan incha allah maay def lépp maay diriger. li ñu dese bu ñu def dara. li ñu dese ci xaalis. mu bari mu néew. li ñu dese ci xaalis mu bari mu néew nañ ko teg. ku daan jël ko. yaa ko tee neex nañ ko signé léegi. ana kayit gu weex nañ ko signé léegi. ñeme ngeen papier blanc écriture bu ñuul. nañ ko signé nañ ko signé. buñ paree ñu signé ko. buñ paree ñu signé ko ku ku daan. maa ngi woo monsieur le maire Islamine Ciss mu jàpp si yi. waaw ñu ngi koy woo bu baax mu jàpp si béy ndax drapeau am dañ koy sawar a bëre moom wax dëgg ndax gis nañ lu baax li muy def ñu ngi koy woo mu jàpp si béy yu baax a baax di woo Mayoro Wade mu jàpp si béy comme ni mu naan jàppee di woo ministre Abdou Fall mu jàpp si béy soxna seeni bu njegéen Cheikh Ndoye waaw maa ngi koy woo bu baax a baax alxaaji Idrissa Gaye sëñ Abdou Ba Njëgeen maa ngi koy woo mu jàpp si béy baax di woo waa Kër ngeen taax kaw min na Fall Kawsara waa di woo mu le maire Babacar Diop mu jàpp si béy monsieur le maire Birame maa ngi koy woo mu jàpp si béy bu baax a baax di woo waa Ngent Kër Maalaaji Taxaw Daabaay Kër Cheikh Min na sama mbokk libi yi maa ngi leen bu woo bu baax baax a baax ak sama mbokk saalum saalum yi ak sama mbokk jolof-jolof yi maa leen woo bu baax a baax ñu jàpp si béy yi jàpp si combat bi ba pare ñu jàppaa si béy bu baax a baax a baax a baax ndax bii moo ma tey bëre grand combat incha allah su ma si jugee kii taxuñoo jóg la ma leen waxoon sama supporter seen xel na dal bu baax a baax a baax kii su abdi siflee ma jëlee ko fi mënu maa maa mën maa ëpp doole la may waxaa si incha allah ajo ino wooteel ñi lay jàppale waaw ginnaaw bi ñu nuyoo monsieur le maire moom la ñu a woo ci bis bi ko fekk dëkkam moom la ñu bi monsieur le maire yow laa waxal damaa bëgg nga jàppale ma jàpp ndimbal kese laa soxla su ma su ma kii envoyé wuloon paas du ma ñëw parce que awma lu ma indi mu ngi nii taxaw su ma waayul woon paas du ma ñëw damaa jeexal tàkk awma lu ma indi indiwoon fii moo jox paas ma ñëw dama bëgg damay dem léegi di ngay def ak man def koog léegi ma dem maa ngi woo monsieur le maire Pape Songo Diouf bu kam maa ngi ko wax maa ngi koy woo mu jàpp ci combat bu baax a baax billets yi ak ak ak oto yi laaj naa ko ñaari bloc jeex na joxaat na ma beneen mu ngi ñu toog lu amul seede baaxul wax day tungoom seede laaj naa ko ñaari jeex na jox na ma beneen mu ngi ñu maa ngi woo maam Xaali Sarr di woo maalit géey am di loo Balla si maa ngi leen di wax ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax waa Ngekoox fàttewu ma kenn Amet Diallo maa leen di woo ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax sama nar bi maam Xaali Sarr nag dama koy woo mu ñëw jël combat bi jël ko ak ay ay loxoom def ci lépp loolu kese laay xaar ci moom maa ngi woo waa Kàmmaa Ngekoox yépp ak waa dakaar Golf Sud maa leen di woo bu baax a baax waa Géejawaay maa leen di woo bu baax pour ñu ñëw jàpp ci combat bi xam nga lu ma leen sant nañ ñëw toog stade kese man tribune dong laa leen soxla na ñëw toog li des ci suuf man maa koy def. rajo ñu bàyyi ngeen jël photo kon. waaw du nuyu sama gaa yi ma àndal sëñ Modou Ndiéguène Madiop Faye ak Apollo ak nuyu suñu chauffeur bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy siifur ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi fii ci Morolan di fi présenté li nga xam ne mooy drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan bii di quatrième édition bi Sidi Diakhaté production war ko amal fële nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma koddu mu yem ak samedi le 6 mai muy bis bu am solo mu boole ci ñaari ndaanaan ñaari champion parce que yaakaar naa buñ ne building bu muusante lañ jël jox ko caatu limousine yaakaar naa loolu bis la boo xam ne amateur làmb yëpp dañ koy xaar waaye ki nga xam ne mooy building kenn ku ne xam na ko ci ambiance ci côté bëre parce yaakaar naa kuñ ni daan na ambulance yaakaar naa kuñ ni daan na ay dara karara daan Joal mi mag bëreeg Alaaji Gaynde bëreeg Boy Jaxaa kooku yaakaar naa doonatul champion boo xam ne des koy présenté ci làmb mais kan lay dajel caatu limousine di ndaanaan di kat koo xam ni bu jógee tund Morolan bi yëpp jóg topp ko parce que koo xam ne nañ bëri naa ak ki nga xam ne mooy caatu dali fort grand combat fële nga xam ne mooy arène national daan ko bëreeg taaw anta bëreeg ñoom trompeur numéro 2 bëreeg ki nga xam ne mooy l'enfant bu kër baaba waaye daan bisaan yoon bëreeg Karara Karara numéro 2 bu bu muusante di ndaanaanu bërekat moom itam yaakaar naa kooku buñ ne mooy bëreeg building bis boobu képp koo xam ne amateeru làmb nga rek foo mën di nekk di nga dagg bee ñëw mais bala ñoo sori rek dañu bàyyi ki nga xam ne mooy caatu limousine comme que tey moo nekk dëkkam ñu bàyyi ko mu dalal adversaire am building caat nuyu nañ la waaw ah, fay nañ la auzu billaahi mina seytaan rajim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax di sant suñu di wax jërëjëf a bàyyi alfa combaan jërëjëf a maire tamit waaw if moom bu ñu bëree drapeau am day doon luñ neex quoi ndax yàgg nañu saa bu ñu amee combat day yëkkati xaalis bu bëri maa ñu combat boo gisee lu tax ma jël ko li mu nekk drapeau if ndax année yëpp if yaakaar naa bii mooy quatrième édition waaw te mbëru Mor Lam mosul bëree drapeau if mm-hmm. man ren jii ne dama koy jël jël bëri ko jëlee drapeau bi Thiès andiwaat ko biir Mor fii hmm? maa la wax loolu building borom muusante bégg nañ la waaw onsu billahi a seetaan rajim ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant du sant gars yi ma euh, àndal ñëpp duma tudd ndax mooy lool ñoom xam naa si seen yéene si man di sant waa Thiès di sant waa euh, Arcos di sant waa Kër Sëñ Ablaye Yaqin du woo waa Thiès gépp ñu ñëw jàpp si di woo mu mu mu daam mu ñëw jàpp si ak sama benn xarit bu dëkk euh, Maroc Matar maa ngi koy siyaar moom jën jën naa ay bee Ah, di woo samay mbokk loobay ñu nekk Espagne ñu nekk Italie maa leen di woo yéen ñëpp kenn ku nekk sa sant di woo sama grand frère Samba Loobe Amady Awa Seex ak ji jëkkëram bu naa nee na moom dana jàpp si combat bi waaw di yoo waa Thiès yëpp nag di nuy ku ma war a bërër caatu limousine du du nuy monsieur le maire papa ñun ñun ak moom la am boolewul dégg nga sa adversaire li mu wax waaw mais loolu après danañ ci ñëw loolu jarul yàkkamti mhm. mais kii sunu papa ki doo toog trois jours te fekkoom seen kër ay yaayam ay ay magam ay magam ay rakam ay jarabaatam ay doomam ñëpp samay xarit lan làmb boolum bu làmb jeexa taw man moom dañuy continuer nuy gars yi ma àndal yëpp du nuy borom jakartaay borom moto yi ñeen ñu ma isoba du waa dëkk waa waaw ci Yves lay nuyu nga jàpp si bii comme ni ngay jàppalee sa waay nga ñu koy jàppale dégg sa adversaire ñoo far ñu nekk ñu ay ndoon làmb xaalis moo ñu boole rek après bu jeexa jeex na. mais kii maa lay nuyu caatu limousine maa lay nuyu doo jox sa wàccuwaay waaw dal dalal ak jàmm sa dëkk yow dama lay dalal. yaa ngi koy baab de. fii sa dëkk la mais dama koy dalal. yaa ngi koy baab laa yaa ngi comprendre kii kii li ma koy wax mooy comme lu Siri Diakhaté wax rek moom daa yor tun dërëm looloo tax ministère yi jox ma bild ginnaaw drapeau bi drapeau Yves Lamine Cissé la ndax sama. ko korite neex loolu nga wax Siri Jaxate billaay sa korite dana naqari la jox naa la jox ay yoo xamante ni naa ko bëgg a jox ndëwëndel la jox ndëwëndel boo xam ne ba nga juddoo ba léegi musoo ko daj xam naa nag du ma seq yow wax ju bëri ne ne nee na sa ndëwëndel da xaaral maa ngi ñëw nee na sa ndëwëndel dafa nar a sa korite neex na mais sa ndëwëndel day naqari sama korite neex sama ndëwëndel day neex kii ta kara lamb boole wuñu de building mii nii. li ma def ci làmb moo ma jiitu ci làmb nekk. mais li ma def ci làmb defu ko. ku bëreeg ambulance. xoolal suñuy palmarès. bëreeg ay dara Kara. kii maak moom du yàgg sax bëreeg kii maag moom du yàgg sax. kii combat bi mu jël xamu ko sax xaw man maay borom top 5. damaa garaaw de. am na combat. building booy bi xamula de. waa du nuyu champion yi fi toog yëpp damaa juum xam nga rek maa ngi nuyu champion yi ñu dëkk Thiès yëpp yéen ñu dëkk Thiès yàlla yàlla may ndam du nuy ñëpp ah. mais kii wax signature lay wax xam nga wax signature moom micro yu topp la moom xam nga tàmmul ay ay micro yu bëri topp. tàmm waaw tàmmul yii mooy loolu. caat mi ma dama seq moom. yow kii dama seq moom wax ju bëri. yàlla na ma yàlla may ndam ci làmb ji. doo seq ak moom wax ju bëri. li ma seq ak moom wax ju bëri heure ni pire da nga daw génn saako yi. ba ba ma rey la ba ma gaañ la yow. yéen yéen gisante wu leen bu baax. Kara Kara Kara combat bi ma jël nii dama kaa fonk trop. bi nga jël nii dama kaa fonk trop lan nga fonk ndax Kara boo dee xool gëj naa Thiès trop. waaw sa digg depuis depuis digg sa diggante ak laa. combat laa bàyyi Dakar bëgg moo tax ma bàyyi ko. bëgg a bëre Thiès te drapeau if man dama yàgg a rêvé pour bëre ko andi ko biir Morala waa Morala dafa am loo xamante dañ ko dese mooy roi des arènes man ay kii roi des arènes laa bëgg andi biir Morala fii ah. daf cee manqué te Morala ay champion ñoo fi ne ay champion Yves Lamine Cissé nag maa ngi koy woo di ko wax ne combat bi sa combat dëgg bëgg naa dëkk bu ne mu bàyyi fa ay kaar stade bi ñu feesal ga del ñu bërë bërë bi daan daal building mi mag la kii mag la waaw wuy ma yow kon mooy Pape man. man bi may marché ambulant laa ko doon seetaan. wuy ma kii dama moom ay wax ju bëri. may doon lu ndaw. yow yaa Pape wala man maa Pape xo xool. man dama doon ba bëri ak moom. waaye yow ba bëri ak yow. boo gisee mi rek danga naan roi ngeen. mais yow kan moo la gis naa roi des arènes. kan man doon roi. kan la ma lay wax. yow dama seex yow wax ju bëri. te wër na sëñ Bamba yu yàlla may yàlla may wér ba làmb ja. da nga xam ne yow doo waga amoo bu arbitre bi soufflé beneen caat ngay gis. bu arbitre bi ma yow paa nga yow ngay paa. mu ne bu beneen caat lay gis te le six la. la mais yow bu at bi doo gis beneen building. bilaay kara combat bi terew ma sax nelaw. jaar naa fu gën a métti. da nga jël avance building. billaay wallaay talaay jaar naa fu gën a métti fii. est ce que adversaire yi bokk nañu. combat bi. boo bu at suuf la ku nekk xool. ku xeeb doo wuy ma kii waxi que Camara yéeg a tiim rek. monsieur le maire am muy wax. bëgg bëgg lu ah, nekk dëkkam. <laughs> maire yi yaay ree rek wuy ma ma yow man nii laa mel ma la building <laughs> jàppal ci affaire yi nag xam nga dañuy signature ma ne waaw daa nekk dëkkam Camara yi tiim ko ma takk rajo yi Siri naa ko waxal muy mbalalale rek di wax xam nga Siri Jaxate moom looy gën di wax mën naa la waxal yaa ngi comprendre. dijji dëgg a gën. dijji dëgg a gën. kii maa la wax loolu guy ma guy rëy na lool mais matul këriñ kii maa ko ëpp doole fuuf xale laa ñu bàyyi ngeen maa ko ëpp doole fuuf ñu bàyyi ngeen woote waaw di woo waaw di woo waa Morla yëpp avant ñu ngi sant Père Sidou bu baax a baax ak Père Pambay bu combat bi taxawee tey sonn na ci quoi waaw ñu ngi koy jaajëfal di wax kontaan nañ ci moom quoi di woo waa Morla gi yëpp nag mais doog boy Morla la tout tund mi Morla mu booda monsieur le mer combat ma bëggoon dafa xabraas fa lom isa billet tout gën bu ne yéen yéen tig na ci kaar yéen saa yéen building beeg taxay sama kolo roi des arènes moo ma di kut biir moo la koy séeréel koy xente mante mante rek mais taalal ya asoro mais mais kenn ku ne na ñaan iso le 6 incha allah ko on ɓoo ndam mais doog gën na tout luxus xay ballu gowut pambal daaru alpha tiwin morla cilaan joor cilaan ballu mexeley fen loofe Boyti fépp nootoo guy jama monsieur le maire nag ñu ngi lay woo kii ni Maguette mbay ñu ngi lay woo ci combat bi sama papa Mbaye Combaan maa ngi koy woo ci combat bi sama gars yi ne Allemagne grand Badou grand maa leen di woo ci combat bi grand Mbaye woon bu ma bëree cees ni tey moo ma njëkk a bëreloo Thiès grand Mbaye woon fu ma toll nit làmb di joué na ci lu bari maa ngi koy sant bu baax a baax maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla suñu borom def maa ngi sant ñoom Moussa si ñoom Arlette Arlette day sonn ci man maa ngi koy bu baax a baax mbëru Morlaay 100 pour cent Morlaay maa ngi woo ñëpp di leen wax ni combat bi du sama combat de seen combat la di ci jiital Lamp Fall Lamp wool gars yi ñëw jàppale seen doom. aja Billing maa ngi woo waa Thiès gépp di woo euh, ñëpp tam man Billing Billingu Sénégal damaa ñëw rek muy ree ndax xam naa ba mu toogee ba léegi réeru réewul ndax mbërëm bi mënu kaa reeloo maa ngi woo ñëpp waaw man yow man lépp laa man ku ma gis xam ne lépp laa yaa ngi comprendre isaan yi théâtre kat bi du moo ñëw mais lamb ji champion bi mooy ñëw mbër lu leer laa lay wax waa di woo ñëpp daal di woo waa kër Sidi Ablaye di woo waa waa Cité Senghor Cosmos di woo sama grand Baba Gale Cheikh Niang di woo suñu mbokki mbër yëpp waa Thiès mbër yëpp maa leen di woo ñëw jàpp si làmb ji yàlla may ma ndam si kaw limousine. jaajëf jaajëf. maa ngi woo sama staff bi nag Babacar Abdou Fall Omar Mbenga Ibia gis naa ko fi maa ngay kontaane bu baax sëñ ñëpp waa bayti yëpp nag maa leen di woo ñoom grand Mourou Ngoni ñëpp. tund Mor woo tey. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam man Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du raay te Maguette seen ne woon ma léegi nag nekkatoo promoteur capitale du rail donc léegi promoteur vraiment régional nga. donc monsieur Maguette seen ma koy gërëmaat di ko santaat ci journée bu mag bi nga xam ne def nañ ko barki démb rek ci Mbaling en sa qualité de de directeur général du COUD ba pare nekk aussi maire de la commune de Malicounda. monsieur Maguette Sène ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm population bi yëpp. tey jii nag ñu daje fii ci commune bi nga xam ne mooy commune suma xarit di di dëkk boo xam ni ay mbokk ay xarit laa fi am ay àndandoo ay dëkkandoo parce que moom mooy commune de Morola. commune de Morola ku nekk xam na suñu diggante ak Yves Lamine Ciss boo ko fekkee biir Thiès da ngay defe juddoo fa dëkk fa la ndax ñépp ko adopté def ko seen frère def ko seen mbokk def ko seen loolu nag ci ci ci ci jikkoom la. ci yaram ci baaxam macha allah ci teeyam aussi ba pare nekk nit koo xam ne nit ku jige population de Morolan la lépp lu mu am suba ba ngoon population bi nekk ci ci ci ci jàmm ak salaam rek moo ko gënal. donc monsieur le maire Yves Lamine Ciss honorable laay wax sax parce que ku nekk xam na ni barki démb rek lañ ko taw takkal ndombo yi nga xam ne mooy ndombo HCCT. donc loolu ñu ciy gërëm di sant ki nga xam ne mooy son excellence le président de la République monsieur Macky Sall. di ci gërëm soxna si nga xam ni mooy sa prési la présidente donc Aminata Mbengue Ndiaye donc di ki nga xam ni moom mooy euh, jiite lépp lu jëm ci socialiste yi te ku nekk xam ni Yves Lamine donc moom ku nekk xam na ni socialiste bu mag la mais di jàppale son excellence le président de la ci liggéey bi muy def nii donc ñu koy gërëm di ko sant tey ñu nekk ci quatrième édition drapeau war koo def bu ci yàlla àndee samedi bii di ñëw mu nekk samedi 6 mai ñu war koo def ci hippodrome El Hadj Ndiaw Macodou Diop mu nekk gala de boo xam ne gala bu mag la doon te ki nga xam ni moom mooy bëre grand combat bi di doomu dëkk bi di caatu limousine war a daje ak ki nga xam ne mooy building caatu limousine dama koy félicité pour pourquoi ma koy félicité parce que bi nga xamee ni euh, dañuy tëgg combat yi at mu jot donc ñu jël bële yoon quart de finale la ñu jëkk a jël xale bi euh, bëri woon ci euh, te dëkk fii ci euh, commune Morola ba mujj ñu jël dem ñu dem ba demi final tey nag ñu ne nag comme dañuy dem nag ci grand combat bi dañuy jël ci xale yi pourquoi parce que xale yi dañu màgg ba pare macha allah ñoom Arlette donc ñoom Moussa ak képp koo xam ne tey yaa ngi fii ci biir commune bi donc sous la direction du maire Yves Lamine Ciss donc ñu jàppale leen ba xale yi génne de de grands champions actuellement donc may wax ni tey jii caatu moom moo xool ba ni ma siidi ma ni ko ah, mu ni ma building mii ma dégg ci presse bi muy wax suba ak ngoon guddi ak bëccëg mbër moo ma mënti jox Thiès rek jox ma building moo ma ko gënal. moo tax keroog ba ñuy def face à face bu njëkk ba à Thiès building di wax yow dooyoo ma lañ ci defoon ma ni ko building defal attention parce que kii di caatu limousine def na ay preuve am à travers Thiès indi naa ko fii mu daan fi ku ne. Dakar moom waxaalewu ma ko amitié xam na ko Ibamar Diop xam na ko ba loolu moo waral su fekkee woolu na boppam te écurie bi nga xam ne mi ngi fay entraîner aussi guddi ak bëccëg moom du tricher ba tax mu ni tey nañ nañ ma jox building building di un champion confirmé de Thiès ah yaakaar naa ne xale bi pare na man la wax ju bari ji jaru ko de na nga bàyyi xel ci xale bi daal wax naa la ko mooy Thiatou Limousine kon i ma lay wax ni la bu avez un grand champion mu war a bëre nag le grand combat quand bis boobu donc may wax ni caatu limousine kon sa te d'ailleurs wax na sax building lu am solo dañu ko gis nga drapeau bi nga gis ni moom la ñuy war a bëre te Sidi Diakhaté nu ngi koo tàllal fii ni da koy yóbbu ba ci maire bi ba wan ko ko ba pare bis booba dinaa loo ne drapeau bi maa koy indilaatal maire bi ba présenté ko àndaat ak ay athlètes yooyu yóbbu waat ko présenté ko ndax nee na moom mooy gagné drapeau bi indilaatal la ko donc ah mi ngi nii sax d'ailleurs mooy au moment où je parle caatu limousine ngoog donc ma lay wax ni la Thiatou Limousine dama doon wax léegi la nga waxoon keroog nee nga woon monsieur le maire Yves drapeau bii nga xam ni moom la ñuy war a bëre muy sa drapeau nga ni building baye bool léegi rek loo ciy wax nga wax ko ndax drapeau bi dama koy yóbbuwaat Morola ga mu dëkk sax d'ailleurs loolu nga wax de loolu di nga ko waxaat léegi ci kanam monsieur le donc ma lay xamal ni la ñu ngi lay féliciter parce que wax naa leen yow yaa xool ba mu neex la nga ni man champion laa bëgg a dajal parce que man champion laa moo tax ma bëgg a daje ki nga xam ne mooy building parce que def na ay preuve bay building di wax aussi keroog da nga ni ko yow ci wax ji ci ngay yem bayo boo nga xam ne plateau doo ci toog mukk di gërëm kenn bu soobee yàlla dinaa la woon ni la man Thiatou Limousine champion la kon nag ñu ngi lay félicité parce que loolu un lutteur courageux moo koy wax may gërëm la presse parce que fépp foo xam ne maa nga fa ak yéen yéen ak may jàppale ci liggéey bi ba tey jii sii di jaxate di man lii donc monsieur le maire Yves Lamine maa ngi lay gërëmaat di la santaat parce que lépp lu président de la woon pour ñu def ko ci développement wu bi muy dévo li koy jàppale ci ci politique de jeunesse am yaa ngi ci mooy li nga xam ni mooy jàng mi mooy li nga xam ni mooy santé bi mais rawatina nag li nga xam ne mooy sport bi ak culture bi tey jii ku xam ku xool tey jii li nga xam ne créé ko fii à Morola def fi un orchestre communal def fi wenn troupe boo xam ne troupe communal la encore mu nekk ci wàllu ay euh, théâtre ak folklore ak woy ak lu ne donc loolu ba pare teg fi sonorisation boo xam ne bu am solo la ba pare di jàppale mbër yi tey ba fépp fu ñu jëm nga def fi benn 100 pour cent Morola képp ku ciy bëree nga def ci say moyen ba mu mat sëkk ah loolu rek la son excellence le président bëgg. loolu moo waral tey jii c'est ce qui nga ni cee fii amul benn xale presque boo xam ne day taxawal ndax ñëpp yaa ngi def li nga ci man donc pour mën leen a jàppale ba ñu mën di jàngi suba ak ngoon wala ñu ne ci ci liggéey bi di jàngi métier. donc ñu ngi lay gërëmaat di la santaat te di la wax daal incha allah na nga xam ni li ñu lay ñaan mooy saa woo daan ñëw l' ensemble des villages yi nga xam ne ñoom ñoo constitué pour nekk fii ci sa commune kenn daawul des ginnaaw daanaa gis caq peme daanaa gis sëri sër yi nga xam ne moom lañ daan jël di ko di ko gàccoo gis gis turu bi gis lépp te man gëm luy folklore rawatina nag folklore séeréer bi nekk ci Morolan gi donc ma lay ñaan monsieur le président à partir d'aujourd'hui na nga wax sa équipe bi nga xam ne ñoo lay jàppale pour que ñu dugg dëkk yëpp pour que ñëpp mën a jóg kaar yi indi leen ba ñu ñëw vraiment def une fête de la jeunesse maawo euh, vraiment ci turu tey ji le parrain boo demee nga ni Youssou Ndour vraiment Yves Lamine Ciss honorable Ibrahima Ciss maire de de Mont Rolland mi ngi koy gërëmaat di ko santaat parce que chaque fois bu ñu soxlaa TFM ñëw na jàpp ci liggéey bi retransmettre gala euh, en direct donc sur la télévision à travers le monde entier fu nit toog di ko seetaan kon nag may wax ni boo demee nga ni ko nga ni Youssou Ndour nga wax ko aussi képp koo xam ne tey jii kilifa yi ne ci télé bi rawatina euh, da nga koy tàmbalee ci Birane wax ci wax ak Ndiaga waxal le directeur des programme bi nga xam ne aussi moom mooy tey jii Bouba Ndour ak képp ku fa nekk rek la technicien et vigile ak ñëpp nga wax leen que ni vraiment le maire l'honorable Yves Lamine Ciss gërëm na leen sant la te la population de Morola yi nga xam ne ñu ngi nekk à l'extérieur aussi ñu ngi lay gërëm di la sant te li tax ñu lay gërëm di la sant permettre ngeen leen ba ñuy mën a seetaan lamb ji à travers le monde entier ak sportivité may gërëm na képp koo xam ne yaa ngi jàppale di jaxate donc ci làmbam bi muy def rawatina suma sponsor officiel la Sokosim Industrie may gërëm le PDG monsieur Yougo saw di gërëm euh, njabootam di gërëm sama jigéen Adja Nafi Sow mais di gërëm képp koo xam ne mi ngi nekk euh, Lacosim Industrie di leen wax ni vraiment su Sidi Diakhaté parvenir ba mën a def à travers les régions du Sénégal muy def ay lamb na nga xam ni c'est parce que yéen a ngi ñuy jàppale guddi ak bëccëg suba ngoon monsieur Yougo Sow maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm aussi ki nga xam ni moom mooy le PDG aussi de Ndoukoumane Industrie ma koy gërëm di wax donc moom di ko ñaanal yàlla donc di wax Ndoukoumane construction maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a monsieur Baye monsieur As Ndaw maa ngi koy gërëmaat di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax mais di ko ñaanal Dramé moom mi nga xam ne moom moo yor aussi Ndoukoumane construction di gërëm euh, képp koo xam ne mi ngi liggéey ci Ndoukoumane donc muy le groupe Ndoukoumane construction du groupe Ndoukoumane dans un cadre général di gërëm HD industrie Madar et Mera donc bu ma bu ngeen demee ngeen ni ah, si di kontaan na trop parce que vraiment aussi ñoom depuis x années ngi ni plus de Sénégal donc ñuy defandoo toutes les régions du Sénégal kon wax leen le PDG Moustapha nga ko Sidi Diakhaté kontaan te vraiment équipe bi nekk fii ci à Thiès ak dans les régions fuñ ci mën dem ñu teeru te ñu ngi def liggéey bi bu baax a baax a a baax di ko félicité aussi ci biir màkk yi nga xam ne ren jii jox na ko tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat yi donc loolu mu nekk lu sedd suñu xol donc HD Industrie Mara Sidi Diakhaté ngi leen gërëm di leen sant may la prévoyance assurance sous la direction euh, de gërëmaat di la sant donc administrateur bu mag la nit ku baax la prévoyance assurance di assurance bu wóor di wax nit ñi képp ku am oto aussi na ngay penser à la prévoyance assurance ñoom nit ñoo xam ne la nit ñu baax lañu di wax ni aussi maa ngi gërëm suma xarit Moustapha Kandji mu moom euh, entreprise TDR muy kenn ci ñun nekk suñu doomu ndey nekkoon tamit promoteur de lutte comme ñun mais tourné waat di jàppale làmb guddi ak bëccëg suba angoon Moustapha donc Kandji maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax CGTS ñu koy wax Sidi Ndaw sii di Ndaw ma lay gërëm di gërëm donc vraiment sa structure boobu société bu mag boobu maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax di la wax ni daal monsieur Ndaw vraiment maa ngi lay gërëmaat di la santaat di la ñaanal yàlla mu yokk xewal gi yokk sutura si di gërëm tamit ki nga xam ne aussi moom mooy Papis ja mu yor intercontinental de négoce ma koy gërëm bu baax a baax di wax mbokk yi bu leen di fàtte nag toujours bu ngeen nekkee bu ngeen nekkee ak waa Mera na di fàttali ko toujours seen eau de bi di di di ñu tâche yi di di rey tamit lépp loo xam ne ay germe la quatre vingt dix cent mu koy rey bu baax di wax ni nag loolu bu ngeen ko boolee ak Madaar daf leen di jox un résultat positif kon mbokk yi may gërëm la présence des éléments de Madaar ñoom ñi nga xam ne ñi ngi fii mais di gërëm képp koo xam ne daal mi ngi jàppale Sidi Jaxate guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy def di wax ni daal tey jii nekk nañu fii ci Morola à côté de notre cher frère monsieur Yves Lamine laay wax donc maire de la commune de Morola ñu koy gërëmaat di ko santaat bu baax di ko wax ni vraiment tey jii am nga fii lu mat ay trois lutteurs yoo xam ne ci commune bi la ñu bokk ñoom ñëpp ñu ngi fi war a bëre ci sa drapeau bi loolu nekk na événement boo xam ne événement bu am solo la. gërëm yàlla sant ko euh, occasion la aussi pour ñu balante ak ñun ñëpp kon ci sama bopp maa ngi baalu ñëpp ak di yéene ku ne jàmm ñun ñëpp ay néew du dool lañu. képp ku ma tooñ tamit jàppal ni baal naa la Sidi Diakhaté ni nga ko waxee def nañu ay édition yàlla def tamit mbas bi ñëwoon ñu xawoon taxaw mbas bi bu mu demee tamit nekkatu fii boo am na sax tuuti mais ñu gën a góorgóorlu rek pour mu bañ ñëwaat mais ñu war ko gërëm bu baax Sidi Diakhaté vraiment kuy wax rek boo gërëmee yàlla ba pare da war a gërëm Sidi Diakhaté moom mi xam ni di jël ay risques pour tëgg làmb tëgg làmb mbirum entreprise la te mbirum entreprise risque la kon Sidi na la yàlla fay ci li ngay defal ndaw yi kon Sidi bu ñu wooyee ñun en tant que maire ñu yoree ci suñu compétence ñu yor ci ñaar xam nga làmb de mën naa xam ne dafa ëmb ñaari compétence benn compétence bi mooy euh, sport beneen bi mooy aada ak cosaan mooy culture loolu nag fekk ni ñëw na ci ñun ñu war ci jàpp ñu war a ci jàpp bu baax a baax parce que loolu suñu liggéey la bu ñu gisee kuñ ciy jàppale dañ koy gërëm dañ koy jàppale tamit ndaw yi tamit ñu xam ni Sidy lu muy def ñun lu ñuy def pour yéen la pour yéen la bu baaxee pour yéen la bu yàqoo yéen a ko yàq kon boog foofu damay woo mbër yi woo supporters yi sportivité non violence parce que violence fu mu nekk dara du fa baax kon mbokk maa ngi ñaax encore sportif yi maanaam muy yéen mbër yi yéen supporters yi Sidi Diakhaté lu mu leen defal bu leen ko yàq bu leen ko yàq dañ ko war a encourager ñu xam ne rek sport surtout làmb ku fa dem dangay ngay daan wala ñu daan la kon boog loolu di nga daan tey suba ñu daan la kon boog ñu xam ni rek sport moo demee noonu bu dee am na ku daanu kii daan na dem nuyu ko vraiment ñu jaaman sante vraiment loolu moo gën a am maanaa ko ñuy def violence en tout cas maa ngi woo waa Morna yëpp rawatina conseil daalu u Morna maa ngi woo notable yi mais maa ngi surtout woo sama ancien yi maanaam ñi xam ni ñoo ma samp fii Morlan mooy waa parti socialiste maa ngi leen di woo yéen ñëpp dimanche samdi 6 mai ñun ñëpp ñu dem ci maanaam ci làmba ji jàppale di Diakhaté jàppale suñu jeunesse ma gërëm aussi président de la République di ko woo ndax moom moo ma wóolu def ma HCCT au conseiller maa ngi koy gërëm ci loolu ma moo ma wóolu tamit aussi def ma euh, candidat benn boo ko yaakaar fii ci commune Morlan ñu gañe ko kon ñu ngi koy gërëm su ma paree ci moom ma ñëw ci am Aminata nga Ndiaye sama responsable politique sama présidente gërëm naa ko démb nag ñoo nekkoon réunion réunion bu ne ñu mais ñun moom si surtout dañu koy ñaanal wér mu wér mais mu surtout te suñu partie bi gën ko yóbbu ci kanam vraiment loolu maa ngi woo aussi mbëru Morlan yi 100 pour cent Morlan yéen ñëpp ngeen mobiliser wu pour gunge seen morom yu xam ni dañuy dem bëre. en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di gërëm ñi xam ni teew nañu fii di ñaan yàlla en tout cas euh, liñ ci dugg nii mu gën ñu jeexale ko ak jàmm jàmm daal moo moo baax ci ñun moo baax ci Sénégal ñu ñaanal Sénégal jàmm. waaw réalisation yi de xam naa suñ ko naree wax fii ba suba dina kii mais dañuy tënk rek. voilà defe naa damay toujours jël euh, priorité bi c'est l'éducation et la formation côté boobu mën naa la wax nii fii Morlan amul abri provisoire lu ñu tabax ci classe ëpp na soixante soixante-dix cent jëm kaw tabax nañu presque classe yi yëpp ñu ngi koy tabax amul kii mur d'école yi tamit fii ak euh, benn at ñaari at ci kanam école yëpp lañuy miir léegi dañ koy complété bi ci des maanaam mooy fii Morlan zéro enfant dans la rue xale yëpp ñu ngi jàng ñu ngi leen di gunge ci fourniture et cetera. secondaire ba fa demee tamit créé nañu école sociale maanaam bépp xale bu ñu dàq lycée la commune a créé une école sociale di jàppale di motiver enseignants yi. beneen bi boo demee université tamit euh, presque dafa région yi yëpp fépp am université am nañ fa ay appartement Dakar lu ñuy fay ci appartement yi rek nekk na presque vingt millions par at. apartement étudiants yi ba ba Ziguinchor ba Saint-Louis Bambey partout am nañu ay appartement pour étudiants yi. beneen bi boo ñëwee aussi ba léegi ci wàllu bourse yi fu mu nekk nii ñu ngi fay juróom benn fukki million ak juróom benn million pour xale yi moo naa pour ci tàggatu ci wàllu formation donc ci éducation et formation moom côté boobu ñu ngi def lépp pour que xale Morna maanaam CI mu ne garde di ba université dañ leen di topp di leen kii ñu ngi jublu sax ci jënd ay terrain ay Saint-Louis ay Bambey pour tabaxal leen carrément ay immeuble loolu mooy perspective yi boo ñëwee ci lu ñu nekk nii defe naa ni cent pour cent Morna mu ngi nii présidente baa ngi nii ñu ngi leen di gunge chaque année dañuy jox subvention pour gunge mbër yi. beneen bi mooy ci wàllu sport bi am nañu ASC Morna chaque année dañuy génne fukk million pour jàppale suñu équipe communale ci wàllu vraiment pour mu gunge ko. beneen bi mooy coupe du maire dañ koy def subvention quatre million wala cinq millions nawetaan aussi noonu ci wàllu sport tamit on met beaucoup d'argent def am nañu ba am équipe athlétisme. Morlan am na équipe athlétisme beneen bi mooy ñu ngi initier maanaam ñu ngi vraiment initier basket ci biir commune bi ñu ngi tabax terrain basket à à Palu ñu ngi waajal Ngiig Fall donc dañoo bëgg doomu Morlan ci wàllu sport bëgg nañu ay ay ay bombardier ay Modou Lo bëgg nañu ko bëgg nañu si ay Sadio Mané waaye bëgg nañu si ay góor gi Sidje loolu mën na nekk mais dañuy encourager xale yi di des sport mais li ci des léegi nag ci xale yi la. il faut que ku boori sport léegi da ngay sérieux ñi ma lim noonu ku ci sérieux wu doo àgg foofu il faut que le sport bi foog da war am sa discipline ci sa biir yaram discipline de comportement sa biir comportement boo ko amee am naa yaakaar ni mën nga dem fa sori ci wàllu aada ak cosaan tamit on a vraiment ñu ngi développé am nañu orchestre communal am nañu euh, troupe communal yooyu yëpp am nañ orchestre communal bi am nañ équipement yi yëpp am nañ sonorisation bi gën ci biir Sénégal ñu ngi jublu ci vraiment fexe jeune Morlan am am métier je pense loolu métier bi moo tax sax ñu créer benn centre formation professionnelle à Morlan centre de formation professionnelle boobu xale yi ñu ngi jàng ñaw ñu ngi jàng métier en tout cas foofu pour que vraiment ku réussir ci école bi rek nga mën a am métier. vraiment loolu côté boobu la ñuy mettre surtout suñu accent bi parce que xam nañu ni beneen bi tamit mooy wàllu emploi te créer nañu fii ay projet par exemple boo jëlee Qualité Fruit Sénégal rek. presque am na lu mat ñaari junniy emploi ñu xam ne ñu ngi liggéey foofu ñu ni ñiy liggéey foofu parce que dañu jógee Rufisque ba Ngaay Mexe ba Xombol Thiès Thiès bi ñu bari dañu jóge foofu di liggéey ci entreprise yooyu am nañu beneen entreprise Grilli Claris am nañu aussi ANEDA am nañu ay fer quatre ferme am na bu nekk Palu tamit yooyu yëpp de tax aujourd'hui maanaam économie Montrolland dafa changé tey déjà damay tooñ séeréer yi bu njëkk horaire bi doon ñëw dana doon indi retour Faka waaye tey am nañu ñetti fuuru mbuur donc xale yi Morolan yi tey xam ñu luy retour mburu bees lañuy ndikkee donc loolu dafa wane ni maanaam économie Morolan mu ngi jëm kanam loolu dañoo bëgg aussi que doomu Morolan toog Morolan bañ a dem Dakar waxuma dem France mais dañu bëgg mu teeg toog Morolan njëriñoo Morolan jàngee Morolan loolu moom mooy suñu euh, loo xam ni moom moom la ñuy def pour que Morolan doomu Morolan am confiance ci Morolan toog Morolan parce que bu njëkk ñëpp dañoo foogoon ni pour dund da ngay nekk Dakar. alors que pour ñun dakaar dañ ko defar suñu defaree Morlan waaw Morlan toog fii je loolu loolu mooy kii bi tey doomu Morlan tey ndox courant loolu nag dañuy gërëm bu baax président daal bi République vraiment ak gouvernement am ndax moom bu muy ñëw fii ñeenti dëkk en 2012 y avait que 4 villages électrifiés mën naa wax ni dëkk yi yëpp électrifié nañ ko sauf ñaar u ñett mais benn bi surtout wala ñaar yi xam ni peut-être ñu ngi ñaan président mu jàpp ci mooy Colobane Colobane tàngoor dëkku Serigne Alpha Thiombane la dañoo bëgg vraiment nguur gi jàppale ñu foofu courant ñëw am na beneen boo xam ne dañu ko tépp mais palu yuga dañ ko tépp vraiment bu ñu nguur gi mënee jàppale euh, ñu boole ci dëkku yoo xam ne mel ni ci euh, Kër Assane Mour yi curux dëkk yooyu yëpp defe naa ni président bu ñu mënee jàppale ci courant dina mais ndox moom wàllu ndox vraiment ñu ngi gërëm bu baax a baax euh, ministre Serigne Mbaye Thiam vraiment jàppale nañ bu baax ndax bu njëkk mor naa amoon na jafe-jafe ndox bu tar mais fu mu nekk nii jafe-jafe ndox yi bon ay quelques postes la mais postes yooyu ñu ngi ñaan aussi vraiment monsieur le ministre bu ñu mën a gën a jàppale ci wàllu ndox mi dina baax trop. vraiment en tout cas maa ngi gërëmaat encore une fois Sidi vraiment euh, jambaar la ku mët a jàppale la maa ngi ñaan sama yeneen maires yi aussi voilà ñu gën a jàppale Sidi. vraiment koo xam ne mën na ko surtout waa Thiès ñun waa Thiès Thiès su ma waxee Thiès rek mooy département Tivaouane mbuur ak Thiès ñun yëpp nañu jàpp bokk jàpp Sidi Diakhaté bu xam ne mu ngi. def promotion làmb biir région de Thiès biir euh, Sénégal. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon suivre gis ngeen ñi ngi woon fii ci Morolan présentation drapeau If le 6 bii di quatrième édition bi mu war a amee fële nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma koddu yemook samedi le 6. muy bis bu am solo ngeen gis combat yu am solo yi nga xam ne mu ngi ci biir grand combat bi dox ci diggante building bu muusante di ndaanaan di champion bu jógee Thiès gépp jóg topp ci ginnaaw waaye kan lañ ko booleel muy caatu limousine di xale boo xam ne mën nañ ni fii lay waree muy Morolan di xale boo xam ne champion la ndaanaan la ngeen gis sortu yi am solo yi nga xam ne def na ko fële nga xam ne mooy arène nationale presque quatre grands combats muy ndaanaan di bërekat mais ñu tudde ko koo xam ni mun nañ ni son bi yëpp dañ koy sagoo muy Iflami di koo xam ne dafa jàppale jeunesse Morolan bi yëpp ak li ko wër ñu gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne daf koy taxawoo li ñuy wax chaque jour dañuy gis yeneen bër yoo xam ne dëkkuñu sax biir Morolan mais dañuy gis ni mu leen di jàppalee ci seen zone la ñuy dëkk muy maire boo xam ne yaakaar naa li ñuy wax chaque jour rek képp koo xam ne amoon nga ko sa gox da ngay jël parce que maire yaakaar naa la falee li soxla nit ñi mooy nga taxaw ci soxla nit ñi moom nag taxawaayam rafet na trop jëwam rafet na ñu gis Seydi Diakhaté bii di quatrième édition bi mu ko koy tuddee ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ñaan ñun ñëpp ñu yegg ci ak jàmm muy le six fële nga xam ne mooy Thiès hippodrome Ndiaw ma koddu jërë ngeen jëf. बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए आया बसारे गुरु मिलय बगाए قرون من الفخر يا يا بصار قرون من الفخر يا يا بصار قرون من الفخر يا يا بصار قرون